fi mu toll nii politiciens yi rek waruñu defal Sénégal loo xam ne dañoo bàyyi lépp politiciens yi ñooy buum di buum yi lu leen neex la ñuy def mais ani ñeneen ñi ani kilifa diine yi man dama leen déggal lu bëri de dama leen di laaj ndax màggal ak gàmm bu jotee ñëpp buubu dem seeti leen waaye naqar bu taxawee ñu ne tekk moo tax man damay rafetlu euh, monseigneur Benjamin Ndiaye jël na kàddu wax ko ci ñun la bokk kàddu googu mooy kàddu kilifa ñu ngi mettitlu da baax Malick newu fi su fi newoon kàddu yi muy jël ñuy woo suñu njiit yooyu parce que foofu lañ bokk famille yooyu lañ bokk mooy kër diine yooyu ñëpp fa fa lañ bokk waaye suñu naqar su taxawee dañu leen bëgg a dégg waaye bu weesoo ñoom tamit ñun askan wi artistes yi dañ ci am wàll artistes yi dañ ci am wàll boo wootee stade mu fees dell askan boobu bu amee jafe-jafe da ngaa war a taxaw waaw ndax am na foo xamante ne gor mu xam a mbirum gor la daal mbirum gor sa la donc dañuy woo ñooñu ñëpp wan leen ne Sénégal gii ñun suñ ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk du ñu nangu kenn jël jaay ñuy doole daa ko teg ci ñi te ñeneen ñi noppi di loolu mënul nekk donc film ñëw ci waxtoom bi ñu koy def sa newoon nañu ah moytu leen est-ce que lii est-ce ne déedéet dañ koy def lu tax dañ koy def ndaxte hôpital yi tëjuñu école yi tëjuñu banque yi tëjuñu lan moo tax lieu de culture yi di tëj donc dafa am xeex dañ ko a xeex ci wàllum artiste ak ak yelleefu artiste waaye tamit devoiru artiste parce que mënuñu nekk fi di yëkkati benn loxo naan ñu dañu amee droit amee droit rek suñu devoir suñu excès ñu ñëpp ñu ñu ne tekk duñ duñ ko nangu moo tax film bi daal waaw xeex la daal